maa ngi leen di nuyu ku ci nekk seen tur ak sant man la madame Ndiaye Antoinette euh, bokk ci délégué yi personnel hôtel Faidherbe comme ni ko sama collègue bi waxee sànq euh, defe naa duma ci sori ndax moom wax na lépp dañu nekk di liggéey pendant 17 ans 17 ans de service du 2 jours. ñu embauché ñu vraiment ñu nekkoon ci suñu liggéey amoon yaakaar ne dañuy liggéey ba jot suñu retret mais tel n'est pas le ba ñu ñë jëndee comme ni ko sama naataango expliqué dañoo jëndaale jënd suñuy droit ne dañuy continuer suñu liggéey ñu amoon yaakaar lool mais ba ñu liggéey ba am at ñu ne ñoom dañuy defaraat te yaakaar naa ne defaraat nag am na lu ci luwaa wax ba ñu ne dañuy defaraat ba ñu woowee dañ leen ne ah waaw amul problème nañu dem chômage technique ñoom ñu toog ne déedéet bu mënuñoo dem chômage technique dañuy dàq ñépp dañuy dàq ñépp mu doon loo xam ne métit la ñu ko ñu dund ko ci liggéeyukaay bi boobu ba léegi nag ba ñu jotee suñu préavis ak lépp bëgguñu def loo xamante ne day jalgati yoon parce que dañoo xam ne ñi ngi ci dëkk bi nga xamante ne yoon a ngi fi ñu topp yoon lim ñu sant ba tey fi ñu toll nii ba ñu xëy ne ñu ay ca jox ñu suñuy licenciement comme ni ko sama naataangoo bi waxee li nekk ci préavis bi ak li nekk ci licenciement bi di nga du li nga xamante ne benn la motif économique moom la ñu bind ci licenciement bind ci préavis bi construction dañuy tabaxaat kuy defa kuy defaraat nag yaakaar naa ne war nga ne say employé dem leen toog su ma defaraatee ba pare am na lu ci yoon wax nga jëlaat leen mais loolu yëpp amul parce que loolu la ñu yaakaaroon ne dañuy bàyyi ñu dem chômage technique après ñu reprendre suñuy liggéey mais tel n'est pas le léegi nag comme dossier yi mi ngi fa mu war a ne mi ngi ci ministre ministère ah ñu ngi woote daal wollu ngir gouvernement Sénégal taxaw ci dossier boobu ba nga xamante ne seeni njaboot duñu sànk sama naataango wax na ko sànk parce que tey jii suñu d'accordee lii am bu boobaa keneen dina jóge bitim réew ñëw jënd benn société buy dox ba pare nga jël ña fa fekk nga dàq ne motif bii moo tax te yaakaar naa ne ñun sénégalais yi dañu war a xoolaat suñu bopp ci côté boobu ndax yaakaar naa ne benn sénégalais war du jóge fii dem beneen réew jënd fa entreprise buy dox ba pare ñu ne la dàqal doomu réew mi gouvernement réew moomu di ko nangu kon yaakaar naa ne suñu gouvernement réew duñu nangu te duñu seetaan dinañu taxaw ci cas bi ba vraiment ñëpp seen xol dina ci sedd pour vous dire aussi personnel hôtel Faidherbe bu kenn kontaan na ci 49 personnes. seen xol seddul ndax am nañu mbetteel ak njàqare ci lii nga xamante ni nii la demee parce que ki ka njëkkoon yor moom moo ko yor ñu liggéey ak moom pendant euh, seize ans plus de seize ans parce que ñoom ñii ko jënd un an la ñu def ak ñoom un an liggéey ak ñoom ku bees ki moo ñëw jënd liggéey ak ñun bu wàññi woon sax mu neex mais dafa dàq ñépp ci gàttal ñépp la dàq bàyyiwul kenn ñépp la dàq waaw jigéen ñi bari nañ ci CDI la ñu amoon waaw dañu licencié wu cent cent vingt dañ ñoo licencié yëpp ñun ñëpp ñun ñëpp te comme ni mu ko waxee le vingt neuf la ñu waroon a arrêté mais ñoom dañu ne le vingt neuf la ñuy tëj hôtel bi dañuy dàq ñëpp mais dañoo jëloon client ba le vingt vingt deux mars mais le vingt ba problème feebar bi amee finalement clients yi dem avant seen date ñun clients yi dem le dix neuf ñun ñu jot suñu. feuille de licenciement le 20